lii na naka la mën a je pense que population bi seen bopp ñoom ñoo war a jóg ni lii na fi jógee parce que quand même lii lii mu nit mën nit mënu ci dëkk ngay ñëw ay solution yu provisoire ñëw manque affaire yi mu jeex mu dellu si waat je pense que ça n'a pas de sens lii da koy defar une bonne fois pour toutes mu jeex comme ça nit ñi am jàmm parce que lii quand même euh, problème de santé publique bu muy jur pense que dafa jéggi dayoo. c'est c'est très mm-hmm. euh, euh, ay euh, inquiétude parce que ku nekk xam na ne dund ci ndoxu taw bi dafa metti boo ci boolee ndoxu xoos naka la ñuy dundee ak xet bi bëgg faa mën a lekk bëgg fa mën a naan parce que tamit foofu mooy seen espace bëgg fa mën a tëdd xale yi nekk fa ku nekk xam na aussi xale dafay soxla espace environnement bi et comme comment ils vivent nan la ñuy cohabiter sax laay bëgg a wax ak ndox bi Fatou boo xoolee ci biir image yi sax di nga gis ndaw ñi ci seen bopp nga gis yeneen kër yoo xamante ni tey ñu ci biir ndox moomee lañ nekk tey am na ci ñaar ci kër yi nga xam ne dugg nañ ca bañ ca duggee gis nga ñooñu ñuy togg hmm. ci bi hmm. te mu leeral na ci biir ndox mu bon boobee lañ fas yéene lekk hmm. keneen ñu toggee ñu ngi nii te it dafa tombe loon muy veillu tam euh, lendemain tam xarit bi tey mu ne la ñun amuñu fu ñu toggee tam amuñu sax temps wu naan dañuy tam xarit nii la tëddee maanaam dañuy dajale teg ko ci kaw ba mu nekk ci kaw ndox mi mhm. ñu mën ci mën a lalaat seen matlaay war ci mën a fanaanaat mhm. ba guddi jot mhm. nga imaginer xet gu bon bi voilà ku nekk ci film en fait ndox bi moo jéggi dayoo tellement parce que ñun ñun ñun déjà euh, ki ngeen njëkk gis ci image yi sax dañ ko mën taa ko gis rek interpellé ko mais boo seetee dama dem Mamour Diop dugg ci biir après xet gi mm-hmm. yow ci boo ko ñemewul boo boo boo jógee foofu di nga désinfecté yow tamit sa bopp quoi mm-hmm. qu'il mu leer na ne lii ñi di dund yow mi ci sa bopp boo ko doon dund itam dafay métti te waajur bii nii tamit toog da ngay da lay leen silmaxala mm-hmm. silmaxala dund biir moom silmaxala te it njaboot bi ñoom ñoo nekk fii dañuy lijjanti nga gis ñii ñoo jël peel mu jógi sa temps naan dañuy soldat la ndax mënuñu ndox mi tey am na si kër yi nga xamante ndox mi dépassé na seen cheville mhm. dañuy xuus mën cee togg ci la mën a lekk mhm. xoolal risque bi nga xamante ne am na ko ak jàngoro yi nga xam ne lépp mën na cee judduwaale faat mu doon lu métti mën ngaa fekk dara waaye tal bi mooy jafe-jafe xam nga ku nekk ci ndox bi Chérif Cheikh di di xuus yaakaar naa ni taloo sax euh, nekk ci sa bopp waxuma laa ngay ngay ngay def yenn mm-hmm. yenn affaires yi kon daal ñu ngi euh, interpellé ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñu def ci la ca war Habib ñu lay sant bu baax di la gërëm li ngeen di am solo trop jërëjëf Fatou muy ah. noonu euh, Habib Faye lañu àndaloon ci école la banlieue dañuy desandi ak moom sunu spécialiste politique Alhassane ñu ngi lay dalal Alhassane yi <laughs> bismillah jërëjëf ñu ngi lay nuyu nuyu mboolem di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan mhm. ci altine bu nekk très bien un mot juste ci élément bi Habib Faye def laata ñuy jàll ci politique c'est très dommage quand même Fati dafa daw yaram mhm. boo gisee ndox mi ak ñu mhm. ci xuuse ci environnement boobu je pense que ni tu vas te dire am na ñoo xamante ni vraiment soxla nañu te je pense que ni Chérif wax na ko léegi maire bi ci boppam euh, moom mooy le premier boo xam ne peut-être waroon na euh, moom lañ interpellé mhm. pour ñu jóg ci lii ndax daw na yorop mhm. ñu yore wàllum assainissement bi itam nga la euh, nañu dem rek balaa béy di wéy mbuus te itam am na ñeneen ñu koy dund itam muy jafe-jafe boobu ñu ciy jaajëfal bu baax a baax Habib léegi-léegi dañuy jàll ci politique ànd ci ak Alhassane Ba